Cheikh Tidiane Niang Boy Faye Cheikh jàpp la bëgg am na loxo ci ngemb Cheikh jàpp la bëggoon am na loxo ci ngemb waaye Boy Faye jàppul fenn Boy Faye nga yóotu ngemb Cheikh bañ Cheikh Tidiane Niang Boy Boy Faye moo ñu ñoo ngi ci quart de finale yi Cheikh Tidiane Niang na ca gaño ga Cheikh Tidiane Niang Boy Faye production Franc Pape Maron ñoo nee ñee ca ginnaaw Cheikh Tidiane ñaa Boy Faye Cheikh Tidiane jël na tànk Boy Faye tànk Boy Faye lan la cay def da cay liggéey wala da koy bàyyiwaat Cheikh jàpp na ca ba mu dëgër Cheikh Tidiane Boy Faye daanu Boy Faye daan na Cheikh Tidiane ñaa waaw Boy Faye def kele Cheikh roccu tànk ba